cliquer je ma cliquer rek nga dal may woo 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Axe social shopping d'Al, j'ai des ànd ak qualité. yee yee un xaaral ma daw gaa doo ma fi coordinateur comité local pour préparation appelu Seydina Limamou Laye Salam. waaw euh, dañuy sant yàlla tout d'abord di julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Ali moom alayhi salaam di ñaanal sunu xalifa sunu baay Duudu Maxtaar yal na fi yàlla yàggal mu gën a wér ak njabootu Seydina Ali moom alayhi salaam gépp waaw comme ni ñu ko waxee woon léegi rek ci table bi euh, jotaay bi ku gis tey ni mu demee xam ni c'est une première c'est une première ci appel bu daan ñëw dañuy préparer set setal am comité local boo xamante ni moo Euh, di si jiital suñu doyen mbay Fall bi nga xamante ni ñoom ñoo ko yore woon Mamour Ndiaye ak Ndiène Diop vraiment ñoo xamante ni euh, soxla yi askan bi rek moo leen tax a jug yàlla dogal depuis deux mille 2014 ñoom ñu nekkoon ci liggéey bi di ko doxal bi nu demee ba quelque temps ba daaw euh, daawaati jeeg en 2019 la yàlla dogal ñun jeunes yi ñu waxtaan ñu ni il est temps ñu dem dooleel leen seeti leen may leen beneen appui. bi nu demee aussi ñoom ñu recevoir nu ci anam yu rafet bi yàlla dogalee aussi bi nu waxtaanee ak ñoom ñu jël mbir mi daanu koy jébal keroog bi nu réñoowee yàlla dogal ñu fal ma bu bees mais aussi di ci ànd ak toute la jeunesse de Cambérène euh, ñuy waajal appel bi. comme ni ma ko waxee léegi rek dañu ficelé benn programme boo xamante ni deux semaines avant la bis bi su ne deux semaines yaakaar naa mooy ñaari semaine yi mujjee avant appel appel bi muy le 4 ak le 5 mars di ñaan suñu borom yàlla yóbbu ak jàmm. mbir mi nag programme bi nii la tëddee incha allahu rabbi dinañ def lancement bale bi le 19 fii ci jàkka ji soo ko defee dañuy lancer appel di ci woo képp ku koo xamante ni borom ëtt nga nga ñëw ci jàkka ji am na ay matériel yoo xamante ni war nañ ko jox pour jumtukaay yoo xamante ni pour moom la ñuy liggéey yombal liggéey bi jigéen ñi si jàkka ji lañ koy joxe le 19 képp koo xamante ni rek fas yéene nga ne ci liggéey bi da ngay ñëw fii ñu jox la matériel yi le 20 si la liggéey bi di tàmbalee. ñu ni fan lay commencé ñu ni quartier du kër gu mag lan moo tax quartier du kër gu mag quartier kër gu mag dafa am importance ci dëkk bi soo xoolee fii ñu ne tey fii mooy kër gu xalifa bi fii la Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam daan daagu ba Seydina ma ñoon fii la daan daagu Baye Seydi caw ba ci Bayran ba ci Baye Abdoulaye bi fi génn àddina keroog yàggul yal na ko yàlla yokk ay leer ñu ni quartier bi yaakaar naa ni fii la jàkk ji nekk jàkk yont yàlla Isa bi jàmmalaay aussi ñu ni nag fii la ñuy démarré liggéey bi commencé ko lay ci ëttu mbayeen ba ëttu Ndiobène ànd de délégué de quartier yi foofu mooy le 20. le 21 aussi ñu jëlaat ay yeneen quartier ba vingt cinq muy semaine muy cinq jours yoo xamante ni lay ëtt yi la ñuy def le 26 ñu concentre ko ci littoral bi. parce que gis nañ aussi travaux yi ni mu demee ñi lancé waale appel aussi parce que du tali bi war nañ ko livrer euh, le quinze ñu siy du soññ Ageroute ak état. fexe balaa appel bi ñu inauguré ko ngir mu gën a yombal dem ak dikk bi nga xamante ne am na fii ci Cambérène si la ñuy concentré wu le 26 si littoral bi ak terrain jamono bi parce que terrain jamono dafa war a nekk du parking boo xamante ni fii la oto yi jóge Yoff ak Ngor Wakaam dakaar war fa gaare ñu ni le 27 le 27 mooy set setal général bi set setal général boobu yaakaar naa ni lii nga xamante ne mooy route principale bi jëlee ko ci case bi ñëw ba Nations Unies jël tali Diamaguène jël tali Ndiakambay ak ruq yi nga xamante ni aussi mooy tali déggoo bi foofu lañ koy concentré wu le 27 bi moo tax dañ ciy lancé appel képp koo xamante ni dëkk nga ak Cambérène moo xam transporteur nga moo xam bàjjenu gox nga moo xam relais moo xam koo mën a doon ñu ngi lay woo ci liggéey bi di talal suñu loxo nag ñëpp bëgg ñëpp yëg moo tax ñu defe ko nii ndax kenn mënul dem fépp yëgal leen kenn ku ci nekk jàppal ni message bi mooy sa invitation message bi mooy sa sensibilisation pour à ce que yow nga xam ni mbir mi ñi fi ne nii tey ak yow mi togg di seetaan li yéen a ci yem képp lenn rek moo tax ñu koy def ngir waajal bis bi nga xamante ni bis bu màgg la bis boo xamante ni amoon lu ëpp loolu muy woote ak yonte yàlla Seydina Limaamu alayhi salaatu wa ndax appelu ren bi dafa xaw dafa xaw yéeme li tax mooy premier appel sëñ Ablaye ci biir suuf mooy premier appel xalifa général bi war ko mën a feete muy premier appel am te nag xalifa général ñi ngi door am général bu toogee fii ayam ci Cambérène te loolu nag ah waa Cambérène ñooy capitalu laa ilaha illallah ñooy capitalu diine ji kon kèn mënu leen ci kenn waru leen ci jiit kenn waru leen mën ci liggéey bi kon Cambérène li leen yàggadu xame ci taxawaay ci mën a du bernde ci mën accueillir gan kon nag nañu ubbi kër yi yaatal dënn yi su ko defee ñu waajal bis bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa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 cliquer vous cliquez, cliquer rek nga 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping d'Al. Yay, day ànd